bi nu seedee bi ñu santee yàlla seedewaat ak kennam seedewaat ne muhammad jaamam la ndawam la lu mu yónni julleem ak sëlmalam yàlla na tabbi ci moom muhammad ak i ñoñam ak i saxaabaam ak liggéeykatam bu tedd bi ak képp ku roy ba bés penc mbokki jullit yi suñu xutba tey nag dañoo bëgg di nafaraat léeg-léeg xaaji diine yi nga xam ne moom nañu sunu boroom sàkkal ñu digal ñu jàpp ci te sama xutba bee jàlloon waxoon naa ne diine du kart ndax diine dañ koo fondement ci ragal yàlla fondement bu dëgër bala ngaa nekk ab jullit dëgg-dëgg faw dangay boole ñetti xaaj xaaji diine yi muy ngëm yàlla ak lislaam ak lihsaan yomb na lool ci aw làmmiñ nit ne ku gëm laa bari na ñoo xam ne dañu ah, boo ko mu ne man de ku gëm laa waaye dugg ci lislaam moo gën a yomb gëm dugg ci lislaam man ngaa wax ne dugg naa ci lislaam de waaye ngëm moom mën naa des moo tax faw ñu gëm yàlla gëm yàlla gu wér gëm ay malaakaam gëm ay téeréem gëm ay yonentam gëm bés mujj bi gëm ab dogal yooyu mooy ponki ngëm yàlla yàlla na ko leeral ci alxuraan di wax ne yonent bi de gëm na moom li ñu wàcc ci moom way gëm ñi itam ñi nga xam ne gëm xam nañ loolu gëm nañu yàlla bu wér gëm nañ ay malaakam gën gëm nañ ay téeréem gëm nañ ay yonentam bam jeex beneen aaya mu naan arab yi day ñi dëkkee ci kaw gi day boo leen laajee dañ naan gëm nañu qaalatil arabu amana waaye yowante bi ne leen gëmugu leen de waaye ne leen dugg nañ ci lislaam rek walakin xoolu aslam na ne leen dugg nañ ci lislaam rek gëm daa jafe de mbokki jullit yi ndax ki gëm yàlla ki gëm na yàlla mii ku am la yàlla moo fi njëkk lépp te moo fi mujj lépp ma laaj ndax ki gëm loolu waaye waaye dana dem di sàcc ndax ki gëm loolu dana wax lu dul dëgg ndax ki gëm loolu ci yàlla dana naan sàngara du ko def mukk waaye loolu di bari na sàcc gi bari na te koo laaj mu ne gëm naa wax lu dul dëgg gi bari na te koo laaj mu ne gëm naa naan sàngara gi li fiy dugg ci sàngara buñ la waxoon li fiy dugg kenn du xam nu mu toll ñi ko ëpp ñu koy naan nee nañ ay jullit lañu boo leen laajoon dañ naan gëm naa ndax loolu gëm la déedéet faw ñu gëm yàlla bu wér gëmit ne bind na ay malaaka yoo xam ne ñun mënu leen a gis malaaka yooyu di leen a bind ci leer du ñu lekk du ñu naan du ñu moy yàlla ñu laab lañu te li leen yàlla digal la ñuy def malaaka yi bu ñu leen koy misaal nu leen koy misaale li arab di tudde caméra al mooy caméra yooyu ñuy teg nga xam ne di ko deg ci barab barab yi ñuy kiiyee xam ne soo duggee ñu di la photo malaaka noonu la mel man ngaa dugg te doo gis caméra mooy lay jël rek danañ bind lépp lu tuuti ak lu mag malaaka yi dañ ko bind duñ ko bàyyi ni yàlla bind ci malaaka kenn xamul nu mu toll mu ëpp mbindeef yi am na ci ñoo xam ne da koo booleeg yéen rek ba faw ñu ngi leen di def muraqaba rek boo nekkee ci nekk foo mën a nekk yaa ngi ànd ak malaaka yi ñu ngi bind li ci gën a tuuti ak li ci gën a sew lépp malaaka yi dañ koy bind dañoo war a gëm loolu gëmit téere yi nga xam ne yàlla da koo wàcc ngir mu xamal nit ñi siraatal mustaqim yoon wi nga xam ne ci lañ war a jaar jaare ko ci làmmiñi ay yonentam nag yu tedd yi waaw gëm loolu jëfee itam li ci téere bii nga xam ne moom lañu yàlla wàcceel ndax moo boole mbooleem li ci téere yi waaye yàgg naa wax ne téere bi moom xiraa la ëppi tatbiq maanaam ci suñu réew mi njàng mi moo ëpp ci jëfe téere bi dëgg la njàng mi baax na de waaye yàlla na yàlla dimbale ba ñuy jëfe li ci téere bi bu nu ñu jiitee dimbalewul ba nu koo mën a jëfee ñun ñu koy jëfee ci suñu bopp ñun yàlla yàlla dimbale ba nu koy jëfe faaw ñu gëm itam yowmal yow yowmal xiyaam gëm tiit ya fa ne ndax Cheikh wax na ci lu bari waaye mënuñu indi lépp waaye Cheikh Xadim wax na ca bunt ba rek ne nee na su keroogee danay isaab nit ci ci lu demee ni miir ak fatir ak naqiir mbokki jullit yi xool leen loola sëriñ bi dañ koy waxal lu neex de waaye lu ci bari bind na leeral dafay am su ëllëgee su ëllëgee kenn du ne ko yaa waxoon naa nga la loolu soo ñëwee taalum yëpp dangay ngay ne dugal àjjana waaye dana la ah, bindoon naa bàyyi fa nee na bu ëllëgee danañ leen xisaab ci toll ni xitmiir ak fatir ak naqiir xeet mii ak fat yi naqi lépp mi ngi ci biir tàndarma xool leen benn doomu tàndarma dong waxuma doomu tàndarma yi de waaye li ci biir rek ñu di ko seen ñu ne ne sëriñ bi nee na danañ la ko xisaab wax na ne fayu dana am boo fa tooñee nit yàlla du bàyyi dara jàll te ka nga tooñoon fayuwut ba ci jur gi ñu ne ah waaye loolu de doy na waar sëñ sëñ Tuubaa ba ci jur gi nee na jur gi amoon béjjën am doole tax bii amul béjjën mu di ko mbëgg su ëllëgee yàlla dana ko fay faj soxali béjjën mu mbëkk bi ko doon mbëkk ba noppi fayu waa ana bokki mbokki jullit yi ñuy tooñ seen mbokk yi de jàpp nit tooñ ko tëj ko ci kaso jàpp nit lu ne nga def ko rek lu ma sa moroom def nanga ah wa yaqahu alqisaas bayna jamma wa bayna xarna ali adlin sam yooyu dañ ko war a gëm danoo war a gëm ab dogal gëm ne lépp nit ñu lu ci bari dañ ko dañ lépp rek yàlla bindoon na ko ba noppi bala moo bind nit ñi bindoon na ko daan naa ko fi wax samay xol ba ne leen mi ngi mel ni architecte boo xam ne ñëw nga ne ko jumaa sàngam laa bëgg mu defal la jumaa ji defal la bunt yéeg lépp mu yor architecte ba teg plan bi ne la mi ngi nii yàlla noonu la defoon lépp noppi na yàlla yàlla dimbali nag na ko yonent bi sallallahu waxe ñu dox ci yoon wu baax wi ba ba taseeg suñu dogal ñu dox ci yoon bu baax ba tey suñu daara fa kullun muyassar la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon fa kullun ko saaba yi laajee ne ko kon tee ñëw tee ñëw wëkkandiku ci suñuy téere boog lañ ñu loon rek bañ a def dara comme yàlla bind na lépp mu ne leen de ñaamalu da ngeen def de kullun muyassar ku ci nekk rek la nga nekk yàlla na ko jàppandal am na koo xam ne mënut a def lu ñaaw xam nga ni ko yàlla jàppandal la ko yoonu yoonu àjjana ki nga xam ne mu wóor na ne yow mënoo def lu ñaaw sa xol bi mën mënta def lu ñaaw mënta def lu bon jàppal ne na sa xel dal ki xam da naan man daal xaw ma mënumaa def lu baax de lu la waaye woo ci baa nga ne man daal mënumaa def sama wala sama xol bi na nga tiit ci sa bopp nga tiit ci sa bopp te doo tuubaat ba xam ndax yàlla nag yamhu llaahu maa yashaa wa yusabbit su ko neexee mu far sa xalaat leneen ba tax ñuy sàkku tuub lu neex yàlla rek mooy am dogal boobu dañ ko war a gëm bàyyi njàmbat yu bari lii mooy nga mu ahlu sunna moo tax Sëriñ Tuubaa wax na ko ci téeréem ba xam ne ñëpp ko war a jàng daa mel ni ndaw ñii lay waxal waaye ñëpp lay waxal mu ne dafa war a dañoo war a gëm ne jeexit mbindeef amul benn jeexit amul lenn lu mu def maanaam nit defut dara jeexit yëpp yàlla ba ci tey jii jamono yi ñuy yéem technologie yeeg yu demee noonu waaw ki nga xam ne tey dafa xool dafa jël appareil bu fekkoon ne gës matière bi nga xam ne moom la gëstoo nii ba jëlee ko. amu ko woon ci suuf sii ba man koo jël fan la koy jëlee nan la koy mën a defare loolu lépp yàlla defoon na ko ci suuf def na fi or bi def na fi xaalis bi def na fi lépp loo xam ne mënees na ko gës kon nit deful dara dafa ñëw rek yàlla jox ko xalaat nag muy jëlaat nag ci biir xalaatam di liggéey moo tax sëñ Tuubaa wax ne wa wajaba al asara li rabbina wala yakunu lil wara laysa yakunu fi jamil alamin muassirun fi asirin ma zal dañ ko war a gëm lii lépp nag jëfi xol lañ koy gëme jëfi jëf ji nag nga xam ne lislaam la ni ki julli juróom ñu di ko def ndax lool la ñu lislaam sant téere fiqh yi sant nu ko laab njàpp sangu koor azaka aj ak yu niroog yooyu waaye nag loolu lépp buñ ko dee defit yàlla moo xam sellal ga moo xam ki ci sellal ak ki ci sellalul ndax yonent bi dana dana nettali daa da wax ne lu bari di ngeen ko mën a nañ jaamu yàlla ci sellal yonent bi dana wax ne nit dana julli ba noppi ñu jël julli ga xëpp ko ko yal na ci yàlla musal kenn du ko nangu xadis bi mu waxoon Muaz gis ngeen ko nit koo xam ne day jëf jëfa jëf te jëf la jëfi julli la wala jëfi tabax jàkka wala dafi def ndanga def ndangam def ndanga ba ñëw ca keroog malaaka yi yéem jëf jooju ndax ñoom xamuñu am na fu ñu yem seen xam-xam ba ñëw yàlla ne leen kii li mu doon def tax taxum ne leen mu ne da ko doon def rek ngir nangam ak nangam yal na yàlla musal ci loolu yal na nu yàlla def ay jullit yu sellal lépp lu nuy def nu xoolaat ko bu sellul ñu wàcc ko moo tax nag yàlla moo xam li ca sell ak li ca sellul bi ci gën a jafe nag mooy ihsaan moo tax ma ne yéen mbokki jullit yi nañu natt suñu bopp ndax bokk nañ ci ñuy jëfee ihsaan wala déet wala ndax dégg nañu ihsaan dëgg-dëgg wala déet sëñ bi wax na ci lu bëree baree bëri soo demee ci masaalikul jinaan waaye ni mu ko tënkee rek ci aadaam ci téere bu ndaw bi rek mel ni koy wax ak gone yi nee na si ihsaan day bu ngeen ko xamul yéen gone yi ki ngeen koy defal mooy ki nga xam ne moo men moo moom seen ruu yi moo mën seen yaram yi naa kon mooy yàlla ihsaanukum yaa ayyuha sibyaanu liman lahu l arwaahu wal abdaanu ñu ne ko waaw bu ñu xamee loolu ba noppi nag mu ne kooku nag da ngeen koy jàmm ba mel ni yéen ngi jàkkaarloog moom te topp li mu leen digal te topp ma mashura li ñu yoonal da ngeen koy jàmm ba mel ni yéen a ngi jàkkaarloog yàlla xool leen su fekkee ne yow foo dem li ko waxee woon léegi jàpp ne yaa ngi jàkkaarloog yàlla ah kooku kooku mi ngi ci lexsaan ndax dara du tax mu jeng te ñoo moom ci néeg ak wala téléphone ne dama lay jox nangam ak mbooloom sàngam ak fexeel ba jël leen nangam ak nangam wax ci nit ñi dara du tax nga jéng li ngay def yàlla rek kay tax yàlla nu yàlla def ñu jàpp dëgg-dëgg ihsaan ihsaan rek moo am solo mbir gis nga bokk yi mbir yi amul solo fi mu ne euh, maade bi ñuy gis nii amul solo tabax bu rëy ak alal ju loolu amul solo gis nga li am solo tuuti la si seen làmmiñ yi ngeen koy génne ak ci seen xol bi moom nag moo mooy yéem yàlla lii di yéem yàlla mooy ci seen làmmiñ yi lay génne di sell ak ne ci xol bi yàlla di ko xool di ko di ci bëgg ay sama jàmm bi moo sell xol di ko xom waaye yére yu rafet te xol bi sellut yàlla nañ ci yàlla musal yàlla nañ ci yàlla musal moo tax nga dégg sëriñ bi di wax ne da nga gis koo xam ne kii da ngay yaakaar ne ma nga yeewoo aras ca moo goloo yam waaju kada daan romb la koo xam ne doo ko danga koy mus daal fekk jéegi bu mu seq rek aras aras yëngu ndax li yàlla di gis ci xol bi dafa sell nit ku wér la du fen du lekk yëfi jàmbur du wor buy wax dëgg lay wax du nekk ci mbooloo tax mu wax lu dul dëgg yàlla nañu yàlla boole ci ñoom jafe na de jafe na de waaye nag faaw góorgóorlu rek koo tax Serigne Touba daal di wax ne yàlla moomu da koy jàmm ba mel ni yéen ko gis bu ngeen ko gisul moom xam leen ne mi ngi gis ñëpp Serigne bi moom loolu la ko tënki bu ngeen ko gisul xamal ne moom mi ngi gis ñëpp in lam xat raaytumuhu fa huwa yaral kulla faraqibu mi ngi